Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, voici quelques flashs d'informations présentées par Cheikh Oussafou. Reparlons de la distribution des doses des vaccins. Euh, la campagne de sensibilisation et du démarrage de ces vaccins démarre ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Le président a donné des instructions claires et précises pour ces distributions puissent se passer dans d'excellentes euh, conditions. l'actualité nationale, les jeunes d'Ousmane Sonko ont tenu pour fissiger et déplorer euh, le manque euh, des sociétés euh, face à le leader Ousmane euh, Sonko qui est pointé du doigt accusateur par euh, un scandale sexuel. Restons dans l'actualité nationale, les habitants de Kassor ont tenu hier une assemblée générale pour fissiger et déplorer le, manque de sérieux des commerçants ambulants qui gravitent autour de leur localité. raison pour laquelle national, de l'université et en compagnie du directeur du CRUS ont donné des instructions claires et précises afin que l'université Chantal n'est pas un dortoir politique. Selon certaines sources, des armes circulent au niveau des campus universitaires. Sur l'international, en Algérie, le président Tebboune a dissous l'Assemblée nationale et a limogé quelques ministres. Pour terminer au Niger, Sept membres de la série ont perdu la vie cette avant-hier à Tirabéry. Leur voiture est tombée sur une mine durant sept ont trouvé la mort. Tout de suite, la version Wolof. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk si kàllaama Kocc Barma di jëm si dose yu vaccin yooyu ñu koy tàmbalee talaata euh, fekk ko dem si diwaanu Sénégal xam mooy njiitu réew mi le président Macky Sall joxe na ay ndigal euh, nit vaccin yooyu ku nekk nga gis sa bopp amoon benn euh, lam-lami ndaw Ousmane Sonko yi amoon dem benn assemblée générale fële ca Kër Massar lépp ñu doon ñawlu ginnaaw bu ñu tuumale seen leader. Ousmane Sonko euh, jëmale ko si nga xam benn xale bi moo xam ko doon sàpp kii di Adji Sarr indi na ay jiixi jaaxa ñoom ndaw euh, Pastef yi ñoom nañ dem ba jeex fu ma xam ne doon benn mën a jàppale seen leader Ousmane euh, Sonko. askan yow fële ca Castor mooy yi def foofu ngi ñaawlu commerçant xam ne ba fa yeewu ba ca di indi ay jiixi jaaxa ñu ne ñoom jot na jëlee fa commerçant yi fële ca seen diwaan yi xam dafa indi ay jafe ay jafe guddi ak bëccëg. dañuy doxoon fële ci bitim réew président bu Algérie nga xam mooy le président Tebboune moom tas na assemblée nationale ne nag jot na fa nag tekki ay ndombal tànk ak ay jëwriñ fële ci Algérie ñu ngi ko téye fële ci Niger juróom-ñaari jëwriñ yoo xam ni ñoom ñu fële xob yi fële euh, bërgënaa réew mi fële ci dëkk bu ñuy wax Tillabéri seen oto moo dal si benn mine ñoom ñu ko faatu mbokk yi ay xibaar si kàllaama ko ci barma présentation Cheikhou Sakho leen di